allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar ci waxtu wi ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Drame mbokk yi yaa ngi fàttaliku woon keroog bañ doon taxaw ci waxtaanu fajar bi ñoo ngi taxawoon ak njëriñ ba nekk ci suturaal mbokku julit wala sa moromu doomu aadama fi ci àddina résultat bala yonent bi sallallahu alayhi wa baaxee ne ëllëg bés pénc noonu nga suturaale sa mbokk doomu aadama bi walla sa doomu aadama bi ëllëg bés pénc noonu la yàlla di la muure malaanum sutura tey ñu fas yéene toftal beneen buntu ci buntu ba weesu noonu ngëneel ba nekk ci màndargaay mujjum jamono nga xamante ne riir day gën a fés nit ñi dañuy gën a sànku ba tax na bépp bés ba ñëw ci dundu doomu aadama yi nit ñi dañuy gën a sure la nga xamante ne mooy njubub seeni borom di tàbbi ci bi nga xamante ne seytaan daleen koy rafetalal ba tax na ñuy fàttali waxu boroom xam-xam su mag jooju di xasanul basri rahimahullah nee na yow doomu aadama bi danga nga war a xam ne bés ya ngay dund bés yay ñëw di jaar di jàll loolu moy lala fi taxabaay ba tax na danga nga war a bàyyi sa xel ne bépp bés ba ñëw jaar ba jàll xamal ne bés boobu am na la mu yóbbaale ci sa dund ba tax na nga déggee ci ne boroom xam-xam bi di xasanul basri rahimahullah mu di la wax ne ibnu aadam yow doomu aadama bi xamal ne innama anta ayaamun yow bés ya ngay dund moo la fi tax a toog te moo la fi tax a bàyyi ba tax na danga war a bàyyi sa xel ne mu ne la kullama zahaba yawmun xamal ne bépp bés ba ñëw jaar jàll zahaba baaduk am na la mu yóbbaale ci sa dundu am na la deñ ci sa dundu ba tax na danga war a bàyyi xel bésu àddina yey ñëw di jaar di jàll di dem nga xam loo ciy def nga xam noo ci nekkee ba tax na bés boobu danga war a ubbi lala sa yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa sallam ne boo yeewoo nelaw azkaar ya nga war a tudd mu nekk alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur yal nañu ko yàlla manloo yal nañu yàlla may kattan yañ koy tudd saa su ne ndax su ko defee suñu bés bi ñu tàmbale ko ci cant yàlla yàlla wërsëgal ñu suñu bés boobu daal neex leneen loo ubbi sa bés bi loolu wóorul ndax amuloo ci tegtal cëslay bu wér ñëwut ci jëf jooju la jóge ko ci islaam la yonentu bi jàngale ne noonu la jullit bi war a ubbee bés bésam ya ko yàlla wërsëgal mu fekkee ko bés yooyu nii nga ko war a ubbee sant yàlla buur bi nga xamante ne moo la delloo sa ruux gannaaw bu mu dogalee ci yow dee bu ndaw de nelaw su ko defee ngi gëm ne ci moom ngay dellu ëllëg bés penc mooy delluwaay bu màgg bi ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa ma sopp xeetam bëgg xeetam amul dara lu ko yàlla xamal ca luy njariñ xeetam lu dul wax nañ ñu ko waaye amul dara la ko yàlla xamal lay soril xeetam ci xéewalu yàlla lu dul tere nañ ko jox nañ ñu ci avertissement la tax ñu war a moytu loole lépp la leeral sallallahu alayhi wa sallam ba tax na mu jum jamono axiru zaman xew-xew bu mag bay xew diggante doomu aadama yi raj-raj loo beeg sëmbax loo beeg dikk beeg kenn dootul xam fa waay di teg tànkam kenn dootul xam penku ak sow kenn dootul xam ndeyjoor ak càmmoñ raj raj loo bi day bëri lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma la xamal xam-xam bu kenn xamul nañ leen bokk déglu tegtal yam ñu tegtal ne bés boobu jamono jooju bu jote képp ku bëgg mucc fitnay yay lëmbee doomu aadama yi ak seen melokaan climat bu guus climat bu naqadi climat bu lëndëm ko boo xamante ne mooy ñëw installé wu ci kaw doomu aadama yi yonent baa ngi nii muy joxe tegtal boo xamante ne tegtal bi du scientifique yi ñoo ko joxe tegtal bi du buxaaba yi ñoo ko joxe du gisaanekat yi ñoo joxe tegtal bi dama ne ñooñu ñépp lépp la ñuy joxoñ comme tegtal bii bokk ci ndax xamuñu ko yàlla miy joxe xam-xam xamalu leen lii kon ki yàlla xamal lii kooku raw ñëpp ci xam-xam sallallahu alayhi wa sallam ba tax na mu ne ñu ci xadiis abi darda radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man xufida cashara aayatin min awwali suurati alkahf usima min al dajjal muslim mbokk yi yal na yàlla nekk ci ak seeni njaboot ki yàlla doyloo mu yónni ko ci xeet bi di ar mustafa alayhi afdalu salaatu wa azka taslima ma yàlla xamal melokaanu axiru zaman yonent ma yàlla xamal lay xew aaxiru zamaan yonent ba yàlla xamal melokaanu aaxiru zamaan lay xew ak namuy deme ba tax na élément ibliis ba ñu naan dajjal dina ñëw installé climat bu soof climat bu naqdi climat bu raglu kilimaa bu lëndëm boo xamante ne kenn dootul xàmmee neen ak dëgg kilima bu muy installé ci àddina kenn dootul xàmmee luy leer ak luy lëndëm kilima ba dajjaal di installé ci àddina si kenn dootul xàmmee ndeyjoor ak càmmoñ kenn dootul xàmmee lu baax ak lu ñaw ñu nekk ci raj-raj loo beeg fëlëx kenn xamut fooy teg say tànk yonent bi sallallahu alayhi wa risaala ba ko yàlla jox message ba ko jox ngir mu partager ko ak jaami yàlla yi rawatina xeytam sallallahu alayhi wa leeral na ko ba mu leer ni amul dara lu ci lëndëm sallallahu alayhi ko yàlla fayal ci xadiisu saxaabi bi ñu naan abi darda radiyallahu an saxaabi bi di abi darda yal na ko buur yàlla gërëm nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi qaal naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na man xafida ashara ayatin min suratil kef képp ku wattu mokkal fukki aaya yu njëkk yi ci suuratul kef résultat bi moy lan ki ko bëgg xam nang ñu bàyyi xel ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci Rewmi FM 97.5 yonent bi nee képp ku mokkal njëlbeenu fukki aaya ya nekk suuratul dinga di nga mucc ci mbindaafoonu yàlla bay ñëw ci axiru zamaan di réeral nit ñi di leen jëlee ci leeru yàlla yóbbu leen ci leen di mu seytaan kay def loolu kuy kooku kooku mooy dajjaal da di mbindaafoonu yàlla boo xamante ne yàllaa koy nattoo ña nga xamante ne ñooy fekkee mujjantelu bis àddina ñooy fekkee axiru zamaan seen jamono ak bis pénc daanaka du doon lu sore alal du tax mucc nit ki raw dajjal ci pexeem juddu du tax mucc nit ki ci pexum dajjal bari xam-xam du tax mucc ci pexum dajjal la yonent bi ne loolu mooy musal nit ki ci pexum dajjal dong lenn la lenn dong la mooy lan nga mokkal fukki aaya ya nekk ci njëlbeenu suuratul kahf fukki aaya yooyu nekk ci njëlbeenu suuratul kahf mbokk yi bu ñu demee xool suuratul kahf dinañu fekk ne ndeke suuratul kahf bokk na ci aaya yi nga xamante ne wala bokk na ci saar yi nga xamante ne moom moo nekk dix saar ci alquraanul karim boo demee xool dix-huitième saar wala dix-septième saar mooy suratul isra dix saar mooy suratul kahf boo demee xool ca saar bi mooy fukkeelu saar ak juróom ñett fukkeelu saar ak juróom-ñett mooy suratul kahf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ku mokkal njëlbeenu fukki aaya yanekkati nekk ci suuratul kahf yàlla dina la musal ci pexe dajal dajjal bu ñëwee mu fekk fi nit ñi fekk leen seen melokaan lépp lu leen di wax day wuuteeg la saar wundu lépp lum leen di won day wuuteeg la aaya ba nekk ci saar bi di tekki ba tax na dootoo ko mën a gëm dootoo ko mën a topp su ko defee yàlla dina la musal ci pexum dajal moo xanaa du ñàkk am na kuy laaj fukki saar yu njëkk yooyu wala fukki aaya yu njëkk yooyu nekk ci suuratul kahf mooy lan ki ko bugg a xam topp ñu si suñu waxtaan yay jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar mbokk yi boo ubbee saar dinga fekk borom bi tabaraka wa taala mu di ci baaxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbeenu fukki aaya yi njëlbeenu fukki aaya yi nga xamante ne yonent bi daf ne képp ku ko mokkal dinga nga mucc ci réeral ba dajjaal di réeral jaami mujjanteelu jamono kon njëlbeenu fukki aaya yi moo ne boo ubbee saar bi di nga gis yàlla suñu borom tabaraka wa taala tàmbali bopp saar bi di bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitaaba wa lam yajcal lahu ciwajan qayiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashiru almuminina alladina yacmaluuna alsalihati anna lahum ajran xasana maakisiina fiihi abada wa yundira alladina qaalu ittaxada allahu waladan maa lahum bihi min cilmin wala li aabaa'ihim kaburat kalimatan taxruju min afwaahihim in yaquluuna illa kadiba fa laallaka baaxiun nafsaka ala aathaarihim in lam yuminuu bi haada alxadisi asafa inna jacalna ma ala al ardi ziinatan laha linabluwahum ayuhum axsanu camala wa inna la jaaciluuna ma calayha saciidan jurza am xasibta anna asxaaba alkahfi warraqim kaanuu min aayaatina ajaban id awal fityatu ila alkahf fa qaaluu rabbana aatina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashadan sadaqa allahu alazim mbokk yi njëlbeenu fukki aaya yi ci suratul kahf ki yàlla yónni di ar rasulul mustapha alayhi salaatu wa azka taslima ci xadiisu abi darda radiallahu anhu yonent bi nee na képp ku nga xamante ne mokkal nga fukki aaya ya ci suratul kahf mooy aaya ya ñu jàng ni tàmbale ko ci boppu saar bi ba ñaan bi fu mu jeexe yow mi ñuy déglu boo ubbee alquran nga xool dix-huitième saar mooy suratul kahf boo ko ubbee ngay liir di dem ba nga àgg ci fukkeelu aaya bi foofu ngay taxaw loolu mooy la yonentu bi ne képp ku mokkal la tàmbalee bopp saar bi ba keroog ngay àgg ci fukkeelu aaya bi nee na képp ku wottu aaya bi nga di ko jàng ba mokkal ko yonentu bi neena dinga di nga mucc ci réelalkat bu mag boobu ñu di ko wax yàlla dina la musal ci cànkute ba dajjaal di sànku nit ñi moo tax mu ne an abi darda jëlee nañ xadis bi ci abi darda radiyallahu an abi darda radiallahu anhu nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaal naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na man xafida achara aayatin min awali suratul kahf képp ku wottu képp ku mokkal njëlbeenu fukki aaya ya nekk ci suuratul kaf usima mina dajjal di nga mucc ci pexam dajjal pexam dajjal nag sànkute kaay bu mag la kiy nit ñi la jëli leen ci leeru yàlla jëmee leen ci lënd lëndëmu seytaan waaye képp ku góor góorlu ci njàngum alquran ba keroog jamono jooju fekkal la fi walla nga transmettre ko ci say njaboot ñoomit ñu góor góorlu ci keroog képp ku dajjaal fekk ci kaw suuf si ngay dundu boo jëlee xadis bi def ko référence sa kanam di mucc ci la nga xamante ne mooy réelalkat boobu ñëw di réelal nit ñi di leen sànk di leen yóbbu ci lëndemaayu seytaane mbokk yi xam ngeen bi léegi yéen a ngi ànd ak ñun ci waxtaanu suba mu di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 xam ngeen bi léegi am na loo xamante ne mu ngi suñu kanam ñu dégmal ko incha allah du ñàkk. fekk ay fan yu néew dinañ ko dalal mu doon feet bu mag boo xamante ne mooy feetu jullit ñi muy iidul adxal mubaarak mu doon iidul adxal kabir muy tubuski bu ñu tubuski nag ñu ne ci ban weer la ñu ne weer boobu mooy weeru bi nga xamante ne mooy fukkeelu weer ak ñaar ci calendrier jullit ñi ti mooy zulhijja fukkeelu fan ci zulhijja mooy fukkeelu fan ci weeru tëbaski ci la xew-xew bu mag boobu daldi am yonent yàlla ibrahim am lamu mu dëxalanteg boroomam ci doomam su ko defee sha allah dinañ ko waajal ci fan yu néew ñu daal di xuusandeki yen suñu kemtalay kattan lañu ci borom bi tabaraka wa ci waxtu ñu ànd ko ki yéen bi iznillahi subhaanahu wa taala képp ku bëgg a xam xew-xew boobu na muy demee ak lafay xew nang ñu topp ci waxtaanu fajar bii di jaar fii ci réew Rewmi FM 97.5 mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yan na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot ñu fas yéene jokk weneen xadis bi nga xamante ne yenentu bi sallallahu alayhi wa moo ñuy baaxee yërmande yàlla ci jaamam sopp cofeel ba yàlla am ci jaamam rawatina xeetu sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu jëlee xadis bi ci abi hurayrata radiyallahu anhu saxaabi bu mag boobu di abi hurayrata radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee nañu walladi nafsi bi yadihi law lam tuznibu la dahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yaznibuun fa yastaxfiruuna allaha fa yaxfiru lahum rawahu yàlla nekk ci yéen ak njaboot ki yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha alayhi afdalu salaatu wa azka taslima ci xadiisu abi hurayrata radiallahu an sang bi maa ngi gëñ maa ngi waat ci buur bi nga xamante ne moo yore sama bakkan yonent bi daanoon na waate nii nee na waat naa ci buur boo xamante ne moo yore sama bakkan man Muhammad mu ne law lam tuznibu bu fekke ne woon du ngeen fi nekk di bakkar la zahaba allahu bikum ni konte woon yàlla dina leen fi jëli effacé leen fi wala jaa bi qawmin yasnibuun mu andi fi xeet yoo xamante ne dañuy bàkkaar fa yastaghfiruuna allaha ñuy ñaan yàlla njéggal fa yaghfiru lahum mu di leen jéggal rawaahu muslim xadis bi muslim moko solo mbokk yi léegi ñu mën a ci maanaa xadis bi ñu war a mën a dégg maanaa xadis bi maanaa yu yaatu waaye ñu tënk ko rekk ki yàlla yónni ci xeet bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu bëgg a baaxee leeralal ñu yërmande yàlla ci jaami waaye cofeel ba yàlla sopp jaamam yi ba tax na mu wara a mën a won jaami ne moo moom moo leen war ci lu yoonu kenn nekkul moo wara daan ci lu yoonu kenn nekkul mooleen leen mën a dumm ci lu kenn du laaj lu tax waaye mu jël loolu yépp teg fee won ñu ne matadi bi maleen leen mooñaale doyadi ba ma leen mooñaale ma def ko ci seen jëmm ba tax na ngeen di bàkkaar man yàlla la soob ma sooboon kenn du bàkkaar tooñ waaye man yàlla soob ma mooñaale leen matadi matalu leen sama santaane yi te ngeen bari looru njuumte ya ngeen di def ànd loolu yëpp kaay leen ma installé leen benn piscine dex boo xamante ne képp ku képp ku tooñ képp ku darape wàcc yoon bi suubu ci dex boobu dinaa la sang ba nga set moo tax nga dégg ne law lam tuznibu bu fekkee ne woon du ngeen bàkkaar fii ci kaw suuf si la zahaba allahu bikum ni konte woon yàlla dina leen fi effacé jëlee leen fi wala jaa bi qawmin dina fi andi aw xeet ñoo xamante ne yasnibuun dañuy tooñ di bàkkaar mais ànd ak loolu yëpp dañuy nangu suubu plongé wu ci piscine istigfaar moo tax mu ne fa yastaghfiruuna allaha bu ñu bàkkaaree ba pare dañuy jéggalu ñaan yàlla mu jéggal leen fa yaxfira lahum yàlla daal di leen jéggal kon yàlla ñu déggee ci ma xadis bi bi léegi dafa bëgg jaam bi di tourner ci boromam ne ko bàkkaar naa ci sama matadi bàkkaar naa ci sama doyadi kon ma lay ñaan nga jéggal ma yàlla dafa bëgg jaam bi di ko jéggalu yàlla dafa bëgg saa su bi won ko ne man ko doyadi la buur bu mat bi yaay buur bu matale bi kon ma lay ñaan ci sa mat bi ak sa matale bi bu ma jàppee sama doyadi bi ba tax na yow mi dëkkee di bàkkaar na nga dëkkee di ñaan yàlla mu di la jéggal luy problème bi mooy nga dëkkee di bàkkaar te doo jéggalu sa borom loolu ëral ba tax na yonent bi nee na maa ngi gëñ ki yore sama bakken bu fekkente woon da ngeen fi nekk te du ngeen juum du ngeen bàkkaar ni konte woon yàlla jëlee nañ leen fi moo andi fi aw xeet yoo xamante ne dañuy bàkkaar ànd ak bàkkaar yooyu ñuy jëf yëpp fa yastaxfiruuna allaha dañuy sàkku njéggal fa yàlla fa yaxfiru lahum yàlla di leen jéggal xadis bi muslim moo ko solo mbokk yi waxtaan wi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu jébbal bërëb bi ñu war a joxe xibaar yi ñu ñaan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana amin ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtaanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina amin barakallahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa